mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte àndaat ak yéen ci soir d'info soir d'info ma feggoo ceek euh, Daouda Mine Daouda Mine miin ngeen ko ci kër gi miin ko ci plateau yi maa ngi lay fay Abdoulaye Der alors gan gi dafa nekk ci xat-xatu tali bi defe naa loolu it lu ñu waxtaanee la plusieurs fois fii ci TFM plateau yi muy jàkkaarloo soir d'info que euh, dem ak dikk bi nu ñuy def ba mu yéwén mm. alors moom mi ngi ci yoon bi bu ñu dabee rek Abdoulaye Sow lay wuyoo moom mooy président bu bees bi mm. ñu fal chambre de commerce d'industrie d'agriculture bu Dakar dinañu ñëw uh, yegge ñu ay uh, mbébétam objectif yi mu teg ndax président bu bees foog mu indaale gis-gis bu bees. Euh, dinañ ci waxtaan ak moom nu mu gën a yaatoo laata muy yegsi nag xëy na. am na yeneen euh, actualité yoo xam ni mënoon nañ ko jàpp tey jii nii. benn buñ doon xaarandi euh, moo tax sax comme daa xaw a yéex siiw jotuñu fi waxtaan nañ ci bee paase mais léegi xew-xew bu bees bi mooy verdict bi. mooy sëriñ daara bi nga xamoon ni yoon da ko tegoon loxo. Mm. daaw mm. siiwal nañ politique bi ndax mën nañ jàpp ni deux ans bu ànd ak sursis maanaam du tëdd ñibbi nañ seen kër normalement hmm. euh, verdict d'apaisement la ndax mun nañ ko waxee noonu waa DER li nga wax moom moo am parce que verdict d'apaisement lañ mën a mën a jàpp parce que boo gisee ñu ni deux ans avec sursis mooy principe condamnation bi accepté nañ ko hmm. juge bi wax na lépp li nga xamante ñu ngi ko doon jiiñ moom moo ko def hmm. waaye daf ne tëdd kaso bi nga xamante moom la waroon tëdd kaso ça veut dire que da ko jox deux ans yu nga xamante euh, du ko tëdd ça veut dire que fii ak juróomi at mm-hmm. su defaatee lu mel noonu day tëdd juróom ñaari at yi d' abord avant ñu koy jugé waat ci lu bees la loolu mooy sursis mm-hmm. voilà donc deux ans yi donc prescription bi cinq ans la mm-hmm. fii ak juróomi at su defaatee xam nga ñu ci bëri ñu mel ni man nga xam ne xamuñu day jàpp ni deux ans bi rek mhm. ci la bàyyi ak di la teg gët bi su ma ko mënee tekkee noonu mhm. ci ci deux ans bi lay yam yow nga ni ma juróomi at la jëm juróomi at la fii juróomi at su defaatee lu mel noonu dañ koy tëj d'abord ñaari at yi nga xamante ne tudd ko. Mhm. avant ñu koy jugé ci lu bees li nga xamante moom la defoon ba ñu ko. Ah. voilà loolu mooy loolu mooy sursis donc li ñu jàpp mooy verdict d'apaisement la. Mhm. parce que bañ ko jàppee ba léegi gis nañ ni euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy maître coranique yi. Mhm. defoon nañ benn groupe. Euh, di wax ni. moom dafa xamul woon et puis dañ ko dañu doon sàññaawal jàpp bi nga xamante moom lañ jàpp parce jàpp nañ ni moom deful dara lu nga xamante ne euh, lu dëppoowul ak yoon parce que dafa jàpp ni daara la dafa daara dafa am lu nga xamante noonu la doon doxee mm. mais justice également estimé que ni même bu fekkee ni daara la loi yi nga xamante ne moom moo nekk loi réew mi dafay appliqué wu ci ñëpp mm. et que mënuloo nga nekk ci benn dëkk bu nga xamante ne c'est un état laïque ñuy appliquer yoon pour ñenn ñi def beneen yoon pour parce que on n'applique pas la charia au Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. dëgg mm-hmm. xamante ne autant musulman bi chrétien bi animiste bi ku ci nekk am nga ci sa yoon. Mhm. et par conséquent loi yi nga xamante dañ koy tëral c'est des lois impersonnelles ça veut dire que appelé kuñ ko ci ma Samba wala ma Demba képp ku nga xamante ne daf nga ñaawteef boobu. Mhm. yoon dafa war a dal si kaw donc loolu moo tax bi nga xamante ne gis nañ ay xale yu nga xamante ne leen a jéngoon. ñoom ñu jàpp ne dañu bafoué droit yi nga xamante mooy droit xale yooyu. Mhm. teg leen yooyu teg leen loxo. Euh, procureur demandé à ce ñu placé leen su mandat de ñu yóbbu woon leen kaso. depuis boobu ñu woon kaso mais juge bi nag moom dafa estimé que ni euh, comme moom nee na xamul woon ni. li nga xamante ne lañ ko. koy donte ci yoon dañ ne nul n'est censé. nul n'est censé ignorer la loi waaw mm-hmm. en fait nul n'est loolu yoon da koy wax. pour bañ ku ci nekk mm-hmm. di am ay lay. Mm-hmm. mais effectivement on sait que ici au Sénégal le droit n'est pas vulgarisé quand même. ñu ci bëri xamuñu lan moo nekk ci texte yi ñu ci bëri nekk xamuñu lan la. dëgg la lu ñuy bañ lu ñu nangu. lu ñu tere lu ñu lu ñu. tere da ngay gis ku nga xamante ne am na am na néew léegi day dem rek au lieu ay kayit mu dem gas. daal di suul affaire alors que da koy tere par exemple mais ñu bëri tey boo ko boo leen waxee ni loi da koy tere xamuñu ko. Mhm. voilà donc pour wax la ni buñ nee nul n'est censé ignorer la loi la loi également taxul nit ñi xam seen droit. Mhm. je que am na effort yu nga xamante ne. état du Sénégal war nañ ko ci def pour mm-hmm. vulgariser le droit pour que mm-hmm. ñu xam li nga xamante moom moo nekk ci texte yi surtout code pénal ak code de procédure pénale pour que nit ñi mun a xam seen yoon comme boo demee États-Unis nga xamante ne n'importe xam ne li nga xamante moom mooy àqam ak yelleefam te mun na ko défendre boppam euh, mais min fii tamit euh, dafa am gis-gis yu waroo ñi nga xam ne ni ñuy wax ñooy taxawal àq ak yelleefu doomu aadama mm-hmm. euh, gis-gis yu waroo ba ni nga wax dënn yi xaw a jóg sax bu waroo par rapport ak ñi nga xam ne ñooy ustaas yi daara yi. Hmm. foofu it euh, yow ci sa gis-gis. Hmm. lan ci ci ci lan la ñu war a dem pour mu nekk solution ci problème bi nga xam ni gis nañ ko. Hmm. te yàgg na fi. waaw man pour man pour man lépp loo gis concertation la. waxtaan dafa war a am. parce que ki nga xamante ne moom xamul lu dul daara environnement daara rek la xam. donc xamul li nga xamante ne moom la texte yi di wax. mooy mooy vulgarisation droit bi nga xamante ne moom laa lay wax tey. tey jii am na effort bu nga xam war nañ ko def ci daara yi. am na nu nga xamante ne moom moo daan am ci daara yi depuis ay années et des années mhm. sunu ay maamaati maam noo lañ leen noonu lañ leen doon yare sunu ay maam noo lañ leen di yare tey ji oustaz yi nga dégg ñuy dégg yëpp koo ci dégg daan la ab ah, mankat euh, jaaroon naa fi daare nii la mës mel ne la la mës mel jamono dafay dox mhm. te jamono bu fekkee ni dafa dox mu am ay loi yu bees yu nga xamante ne dañ koo voté te yow instant bi nga xam nekkoon nga daara peut-être loi yooyu amul woon su amee il faut que également ñoom ñu expliquer la li nga xamante moom mooy loi yu bees yi même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi mais rek waxin la wax sànq mooy dëgg waaw je que état bi que mu nekk ONG yi comme ñeeg war nañ def effort yenn yi xam nga xoddiku bala ngaa lakkale mhm. te bala nga ne xoddiku bala ngaa lakkale bala nga sanction da ngay vulgariser d'abord mhm. pour que nit ñëpp ñu xam ni lan li mooy yoon tëralee ku def lii lii moom moo la ci war a fekk comme ça suba boo ñëwee nga ne ah man xaw moon nañ la ah ñun kat ñëwoon nañ waxoon nañ la lii ba yow sa bopp xamoon nga ne lii dafa bu boobaa dootoo amati benn lay. Hmm. je pense que loolu moom moo war a am bu ko defee ñoom ñu discuter entre ñoom ñu xam on parle de modernisation des daara. modernisation des daara nekkul rek peut-être joxe subvention jox xale yi nu ñuy lekk. wala tabax taax bu wala tabax taax rek même ci ni nga xamante ne comportement bi ni ñuy amee ci daara yi ni ñuy saytoo xale yi ni ñuy yare xale yi ak ni nga xamante comportement yu yu dépassé yi nga xamante daan am ay jéng ay affaire ay fer mel mel ni comme par exemple yu nga xamante ne lañ leen di jël ay à forger je pense que loolu euh, discussion boobu moom moo war a am. ñu dem fekkante daara yi waxtaan ak ñoom trouver une solution définitive bu ko defee lu mel ni doot fi am. alors beneen euh, ponk ci actualité bi. Hmm. Euh, mooy ba léegi defe na Guy Marius Sagna mi doon manifester ak euh, ay ñoñom hmm. buntu palais de la république ca grille ya hmm. xamaguñu ba léegi fu fu ñu féete waaw ci xibaar yi nga ci mujj am. waaw ci xibaar yi ñu amoon ci toll. ci xibaar yi ñu amoon mooy dañ ko arrêté woon ajjuma. Hmm. bi ñu ko arrêté ajjuma xam nga code de procédure pénale dafa wax garde à vue la. mun ko dépassé. ñaari fan maanaam ñaari fan. léegi boo amee ñaari fan soo ko bëggee prolongé da ngay demander autorisation procureur de la r li nga xamante ni ci Guy Marius Sagna je pense que amul prolongation de garde à donc euh, kii lañ ko def. dañ ko prolongé wala. non non wuñ ko. Mhm. donc ajjuma mhm. lañ ko jàpp altine ñu defeere ko sa veut mhm. dire que sûreté urbaine bi nga xam moo yoroon dossier bi ko jébbal ko procureur de la république léegi li nga xamante ne moom lañ jot comme information procureur moom ci boppam dafa jël dossier bi confié ko à un juge d'instruction le doyen des juges mooy juge premier cabinet mais li nga xamante moom la code de procédure pénale wax procureur du jël rek ñëw na ko jox naa leen diw dafa am document bu nga xam da koy préparé. bu ñu mhm. tuddee réquisitoire introductif. Mhm. léegi réquisitoire réquisitoire introductif boobu. mooy li liñ koy toppee maanaam. waaw foofu lay wax ne dama bëgg nga toppal ma ko ci lii ak mhm. lii ak lii li nga xamante ne code pénal da koy da koy tere. dama bëgg nga placer ma ko su mandat de dépôt pour que mu dem rëbës wala dama bëgg nga placer ma ko su contrôle judiciaire bàyyi ko mu ñibbi. waaye ku dem ko contrôler même bu bëggee génn bitim réew dafay ñëw demander autorisation avant muy génn mais ci affaire Guy jot dégg comme information. c' est que procureur non seulement daf ko jox doyen des juges mais dafa demander la un mandat de dépôt. Hmm. pour que ñu yóbbu leen kaso. mais comme juge d' bi amagul peut-être jot wala jotagul kayit bi pour déglu leen bu ngoonee dañ leen di jël ñu yóbbuwaat leen commissariat central loolu la ñuy woowee retour de parquet. Hmm. donc altine ci ngoon dañu amoon retour de parc ñu yóbbu waleen finalement dernière information bi ñu ma déy tout de mm, suite mm, à l'instant mm, mujj nañ leen placer sous mandat de dépôt donc vieux da nga may vérifier ndax ci ñoom amul euh, la ba pare mais plutôt donc placement sous contrôle judiciaire ndax ci groupe bi koo xam ni wala ñoo xam ni noonu la mujjee donc xibaar dafay mët yaa nekk régie. Mm. Euh, ñu ñu lijjanti lool donc voilà l' information bu nañu dab ni nga ko doon waxee. Mm. finalement placement mandat de dépôt am na waaw donc nga xamante ne procureur moom la laajoon. Mm. moom la doyen des juges mujj def. muy inculper leen ba pare placer leen sous mandat de dépôt donc présentement ni rëbës la ñuy fanaani en attendant que ñuy saytu. ndax euh, juge bi ñu leen jébbal. amoon na possibilité. bañ topp li ko procureur sant. Euh, am na am na am na am na amoon na possibilité bi mais article bi ñu visé. waaw article bi ñu visé par exemple tout à l'ordre public. foofu noonu mun il a les parce que dañ maanaam dañ ko dañ ko jéng jéng bi ñu doon bañ sànq image la dañu wax waxin la bi ñu doon bañ ci xale yi. moom. yoon daf ko tënk. ko tënk parce que ah, code de procédure pénale daf ne article yi nga xamante ne bu ñuy toppi nit. Hmm. ci infraction bu nga xamante dafa nekk entre article quatre vingt ba article cent. Hmm. le mandat de dépôt est obligatoire. Hmm. loolu la code de procédure pénale wax. ça veut dañ ko bind noir sur blanc. ça procureur bu ñëwee mu topp kenn su la base de l' article quatre vingt moom mooy trouble à l' benn bi. wala quatre article quatre vingt et un quatre vingt deux. ba cent ba cent. bu ñu procureur bu demandé. juge d'instruction pour que mu inculper na ko bu koy inculper ci article yooyu rek li ci topp moom mooy da koy place mandat dépôt parce que il a les mains liées dans ce alors euh, fii tamit ci information yi ñu yi ñu jot am donc article yooyu nga xam ni moom lañ leen di toppee mm-hmm. li liñ leen di toppee mm-hmm. ndax jàpp nga ko mm-hmm. li ma li ma ci li ma ci li jàppoon li nga xamante moom moo nekkoon ci procès verbal d'enquête bi li xaw ma ndax moom lañ leen voilà moom lañ leen mujj téye voilà donc article benn bi moom mooy 80 mooy trouble à Mhm. article quatre vingt am na beneen bu nga xamante ne dañ ne outrage ah euh, nu mu tuddee violence et voies de fait mhm. sur des agents de la force publique parce que ñoom bu ñu nekkee ci yi dañ leen di jiiñ que ni dañu violenté euh, yenn policiers ak gendarme yi alors xibaar bi mu doon laaj aussi ñu mottali ko mhm. ñoom ñëpp placé nañ leen voilà amul kenn koo xam ni am na ci contrôle judiciaire mooy li nga doon wax tamit firnde na macha woon euh, xibaar bi mm-hmm. ni nga ko waxee noonu la noonu la demee mm-hmm. nee nañ amul kenn koo xam ni mucc na ci mm-hmm. ndax ni nga ko expliqué yoon moo tënk kon loxo juge bi mais moom tamit mënul sàkku ci procureur mu mu mu xoolaat wala wala non mu possible non non possible parce que li ñuy woo réquisitoire introductif kooku procureur moo ko jébbal kayit ne ko dama bëgg ñi nga xamante ne defere naa leen. Mhm. indi jox naa leen ko. Mhm. dama bëgg nga inculper leen ci tel ak tel truc après nga place leen su mandat dépôt. Mhm. à partir de moom si boppam ci lay doog a euh, na laa koy wax sax euh, li yoon may. mu def liggéeyam parce que moom aussi ni procureur amee la ko code de procédure pénale également jox ay prérogatives et à part de ce moment là moom moo yor dossier bi procureur yoratul dossier bi. bu boobaa moom nag lay doog a liggéeyam. ça veut dire que fan yii di ñëw di nga gis ñu ne génn nañ leen entendre leen dans le fond. foofu nag la leen di doog a laaj ndax li ñu leen di jëñ moom moo ko def. Ah. yéen a ko def wala defal mm-hmm. parce actuellement ni li ñu woowee première comparution duñ leen laaj sax lan moo xew ci dossier bi. Mm-hmm. dañu ñëw rek ne ah dañu wax ñu inculpé leen inculpé nañ leen placé nañ leen su mandat a dépôt ah. ngeen dem. ah kon gisante bu njëkk bi yaag juge bi layoo moom xaju fa non non du am layoo naan rek lii ak lii ak la mm. day ñëw sommairement la lay ñëw la plupart identification laaj la yow yaay yow ndax yow yaay Guy Marius Sagna wala yow yaay na nga ne nangam. Hmm. ñu ne bon notifié naa la. incombé oh. devant avocat. Hmm. placé naa la sous mandat de dépôt nga hmm. dem. maintenant nag après dina la woo. pour entendre la dans le fond. Ah. bu boobaa nag ci détail lay doon ñu ne ah lii la jën yow nga expliqué. lii lañ la jën nga expliqué mm-hmm. boo expliqué après ñu ne ah procès verbal bi lii la waxoon lan nga ciy répondre nga répondre mm-hmm. mais à part de ce moment moom tamit am na yeneen jumtukaay yu mu am. Mm-hmm. bon def délégation judiciaire pour saytu liñ lay jën. yaa ko def voilà def commission rogatoire bu fekkee ni dafa war a def enquête au niveau international. dem mën bu dee avocat bi ci lay mën sàkkul client am ñu bàyyi ndéganiku ko mu xaar ñu koy àtte justement voilà euh, même si ah, même si moo tax léeg ñu naan nañ baral euh, gise bu njëkk bi ak juge d'instruction bi pour après ci ginnaaw mën dugal dugal bàyyi ndéganiku bi même si la loi la loi waxul ne hmm. ci étape bi la ñu war a demander liberté provisoire. Ah. liberté provisoire mun nga ko mun nga ko dugal bu mu la neex même tey jii mënoon nañ leen dugal liberté provisoire mais li nga xamante mooy usage bi hmm. mënuñu la jox liberté provisoire tant que entendre duñ la. waaw waaw tant que liñ lay jiiñ amoo lu nga xamante wax nga ko devant le doyen des ju le juge ba moom mu xam ne. lii lii lii li liñ lay topp yow yaa ko def wala defuloo ko moom si am moom tamit amul sañ-sañu bàyyi la. aha donc euh, comme ni ngay wax vraiment yoon foofu dafa tënk. Euh, vraiment euh, le le juge le juge d'instruction. voilà par contre procureur. bu bu ko neexoon mënoon na ci dugal yërmande xëy na. wàññi article yi wala bañ ko yóbbu trois cent ñaata nga ah, wax. article quatre-vingt ba cent ba bañ ko dugal ci diggante <laughs> boobu. moom rek moo ci mënoon def yërmande. voilà mënoon na def yeneen article yu nga xamante ne mën nañ leen inculper. Mhm. bon jox leen liberté provisoire jël dossier bi sax yóbbu ko yóbbu euh. maanaam apaisement bi ñu doon wax euh, ci sànq verdict bu njëkk bi. Mm. fii procureur avant sax ñuy dem ca euh, àtte ak kii. mënoon mm-hmm. na dugal apaisement. waaw parce que procureur moom mooy maître des poursuites. li naan maître des poursuites moom mooy choisir moom moo am opportunité mm-hmm. des poursuites et puis moom mooy choisir ci lan lay poursuivre. amul kenn ku naan ko lii ngay poursuivre mm-hmm. moom mooy xool en fonction de li ko indi parce que procès na ko parce que dañ ne le procès verbal d' enquête préliminaire ne vaut qu'un simple titre de renseignement renseignement bu ñu koy jox rek la. Ah, man de man it ci sama xel mu gàtt dama foogoon ni nga wax. Mm. Euh, police wala gendarmerie li mu la jàppee bind ko ci kayit gi ñu yóbbu ko. Mm. loolu la la procureur di toppee. waaye kon yow bu mu la déggee ni nga wax procureur mën na seet. Mm. ci xelam wala ci euh, moo xam. fu mu koy sukkandikoo toppee la leneen. waaye il est arrivé même que police wala gendarmerie. def mm-hmm. procès verbal d' enquête préliminaire. indil ko procureur procureur delloo leen ko ñoo ne ko dama bëgg ngeen ngeen gën a mm, saytu mm-hmm. ça veut dire que ça ne simple titre de renseignement mais lu ci bëri nag comme dañ ne ki nga xamante ne moom mooy procureur moom mooy directeur de la police judiciaire en mm-hmm. donc moom mooy normalement dès que nga arrêté kenn rek procureur war na yëg mm. fépp foo toll ci enquête war na ko yëg mm-hmm. donc bu fekkee nag moom mi ngi encadré enquête bi yëpp depuis arrestation bi jusqu'à bi ça veut dire avaliser na lépp li nga xamante ne def def nga ko quoi. Mm. waaw dans la pratique. Mm-hmm. dans la pratique procureur bi moom mooy superviser. Ah, ah, alors euh, euh, dam ciy jaare rek laaj la loo xam ne dañ koy faral di dégg ni dañoo niilal procédure. lan mooy indi euh, procédure yooyu di niil finalement ñenn ñi di fa jaare prox ndoll ñoo xam ni ñëpp dañuy jàpp ni ñoo def. Mm-hmm. ñu am sax ay preuves. Mm-hmm. mais kenn du leen mën topp wala du ñu des kaso ndax dañ naan procédure bi. baaxul avocat bay seet nuñ koy waxee prox ndoll gi muy jàll rek. Euh, waaw parce que réglé ko parce que. Euh, droit dafa am ñaari am ñaari code lu ci bëri li nga xam moom la ñu toppee. Mhm. ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jàpp. Mhm. dafa am lu ñuy woowee code pénal ak lu ñuy woowee code de procédure pénale. Mhm. code pénal moom mooy moom mooy prévoir benn infraction ça veut dire que benn délit wala benn crime et puis également def peine bi nga xamante moom mooy attaché par exemple mu ne la vol mu définir ko c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui wax ni ku sàcc lii lañ la woy teg lii lay teg lii lañ lay de procédure dafay dafay dafay def vo dafay def li nga xamante ne moom mooy yoon bi nga xamante ne fa lay jaar pour condamnation am. Mhm. parce que même bu fekkee ni nit ki nit ki dafa def am na ay droit am na ay àq ak ay yelleef. Mhm. pour que ñu mën a respecter àq ak yelleef yooyu mayuñu ki nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy takk deri ñu def lu leen neex ci enquête. Mhm. donc bi nga xamante ne code de procédure daf ne enquête préliminaire warul dépasser par exemple 48 heures. loolu code ko wax. même bu fekkee nit ki rey na nit dañ ne la 48 heures waru ko dépasser enquête bi bu fekkee ne nar nga dépasser 48 heures da ngay demander autorisation bu procureur de la mhm. république soo ko demandé wul loolu mën na nulal procédure mhm. bi donc parce que respecté woo li nga xamante moom la code de procédure mhm. pénale wax. beneen bi ki ki ñu jaare fa donc. jaare plus tard génn beneen bi ñu ni. Euh, règlement UEMOA dafa wax léegi que ni soo jàppee. su ma juumul juumul règlement au article cinq la. article cinq règlement UEMOA mu wax ne par exemple soo jàppee nit am na droit gis avocat su ko bëggee. Hmm. donc yow da nga ko war a notifier que ni avo am nga droit gis avocat. Hmm. léegi su fekkee notifié woo ko yow nga ñëw enquête enquête ko rek après nga kii ko avocat bi moom bu demee ba gis faay boobu xam nga. Hmm. da ciy jaar prox ndollu c'est day day day. nii la nii la boo gisee chaque fois boo demee procès yi dañuy woowe dañuy gis par exemple dañuy woowee exception illiminalitis parce que mooy des exceptions avant dire droit avant même ñuy dugg ci fond bi. Mhm. da nga gis avocat yi ñu soulever ay exceptions. waaw mooy nullité yi ñuy faral di dégg naan. dañuy wax ni bon les droits de la défense. kenn mhm. respecté wu ko. Mhm. ak ak yelleef ki nga xamante moom lañ jàpp kenn yell kenn kenn respecté wu ko pourquoi euh, waxuñu avocat pour que mu ñëw. pour que mu ñëw assister ko si première heure de garde à vue yi. Euh, lan moo tax euh, délai de garde à vue yi kenn respecté wu ko affaire yooyu yëpp constitution moom moo ko prévoir code pénal bi nga xamante moom moo ne ku def lii mhm. délit la wala ku def lii crime la wala ku def lii contravention la mhm. léegi bu dee contravention bi lii moom mooy pen bi nga xamante moom lañ ci attaché mhm. par exemple ñu ne la vol am na am na penam viol am na penam lépp loolu code pénal moom moo ko def mais léegi nag yoon bi ngay jaar pour condamner nit code de procédure pénale moom moo ko def moom mooy procédure bi mais Daouda euh, loolu tamit ndax xel dina nangu comme ni ñuy wax maara day taali kañ ñaana la ko kenn mais ku rey ak njaboot ji ñu lor ki yëpp. Mm-hmm. ñu dem ba ci cappaandaw ni ne waa ji de bàyyi nañ ko ndax dafa am vice de procédure. Mm-hmm. loolu ndax xel nangu na ko ak ndax mënuñu xalaat noo xam ne dinañ ko lépp lu nit di def moom njuumte mënu ci ñàkk. Mm-hmm. mais nu ñuy def ba genre affaire yooyu war nañ ci réfléchir. ba nga xam ni euh, ci cas yu mel noonu vraiment. mu am noo xam ne dinañ ko def ba ñuy loru. bañ a bañ a am après am double peine daal maanaam. waaw am mais xam nga lu tax loolu lu tax loolu. parce que yoon li ñuy wax ne la loi elle est impersonnelle c'est-à-dire que bi nu muy defander ki nga xamante ne moom mooy victim bi. Mm-hmm. noonu lay défendre ki nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom lañ. waaw moo def ñoom benn waaw wala moom lañ jàpp voilà donc dañu wax ni mm-hmm. yoon dafa nekk fi pour ñëpp. Mm-hmm. ki nga xamante ne dafa def ak ki nga xamante ne dañ ko tooñ. donc ki nga xamante ne euh, dafa def. am na lu nga xamante moom mooy ay àqam ak yelleefam et les gens doivent tout faire pour préserver ça loolu moo tax nag responsabilité bu nga xamante moom moo war a am ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi parce que tey boo demee école de police dañ leen di jàngal lan mooy lan mooy droit pénal mhm. droit pénal spécial dañ leen koy jàngal nga dem gendarmerie également dañ leen di jàngal droit pénal pour que ñoom seen bopp que ñoom ñu nekk des gens des gens des gens euh, yu nga xamante ne dinañ def lu tout pour ba ñu yàq seen procédure mhm. def lu ba nga xamante ne ki nga ki ñu jàpp du du ci génne noonu. Hmm. mais su fekkee ne ñoom def nañ ay juumte wala par exemple ñu def ay excès. Hmm. yenn yi quand yoon day teg alors Daouda euh, ñu may suñu gan mu yegg si ndax ni leen ko waxee prétexte waxtaan bi chambre de commerce d'industrie d'agriculture dafa am njiit lu bees euh, yoon yi xat xam naa loolu it chambre de commerce xëy na lu ci seen xam-xam wala ci di ngeen ci taxaw comme ça bu <laughs> bu beneen mu gën a nga gën a gaaw a yegg ab Ablaye Sow ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. Euh, ah, ah, euh, comme euh, waxtu wi daf ñoo tënk tàncuñu te mujj nga yegg si ñu soobu ci rek yaay njiit lu bees chambre de commerce bu Dakar ban ban jour lañ la falati sax ci ay bés bi nu weer. mercredi 27. novembre waa mu yamoo kon tey jii nii muy bés bu dellu si. ñu bëggoon a xam rek très rapidement chambre de commerce boobu lan mooy doon objectif yu bees yi. ndax président bu bees xanaa ay ay ay euh, nuñ koy waxatee objectif yu bees wala ay ambition voilà yu mm-hmm. bees bismillah comme waxtu wi dañ. jërëjëf kon ñu ngi ñu ngi gërëm yàlla di gërëm quand même l'assemblée. Mm-hmm. bi nga xamante ne def nañu lager ci benn sportivité bu ñu permettre ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir assemblée bi euh, am qualité ginnaaw bi ñu waxtaanee désigné ma comme nouveau président bi nga xamante ne moo remplacé le président Mamadou Lamine Niang mi nga xam yàlla na ko yàlla yërëm loolu mooy li nga mm-hmm. xamante ne mm-hmm. moo nekkoon li tax assemblée bi daje organisation bi nag yàlla dimbale nañu ba eh, autorités yi ko seqoon ci taxawaayu le ministre du commerce muy le gouverneur de la région de Dakar def nañ ko ci ab sportivité mm-hmm. eh, bi ñu permettre quand même bi ñu paree ba résultat yi génn ñaar ñi ko seq yëpp kenn ku ci nekk sargal na sa morom joxante loxo nu ànd liggéey. mais coow li bëri woon na te yàgg tamit ah. c'est vrai coow woon na ndax li ko waraloon moo nekkoon euh, liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir chambre bi seen xel dalatul woon ndax renouvellement yi waroon nañ ko def depuis 2016. Mhm. Ah, kilifa dafa manqué woon ci kër gi yàlla defaloon ki nga xamante ne moo nekkoon euh, le secrétaire général tamit amoon aw tabat. Mhm. ba nga xamante ne euh, liggéey bi daal il fallait quand même ñu retourner waat toog waxtaan xoolaat bopp yi nga xamante ne ñoo war a liggéey chambre. Mhm. loolu nag bi nga xamante ne am na ba patronat bi yëpp dajaloo. waxtaan euh, arbitré ñu dem ba nga xamante ne désigné nañ le nouveau président kon li ñu war a njëkk a def rek mooy euh, sargal nañu ñëpp. gërëm ñëpp tàndu loxo ñi nga xamante ne ñoom lañu ko seqal pour ñu seet nan la ñuy def ba mën a taxawu le secteur privé national. waaw dañu gis euh, fan yi passé ñi nga xamante ñooy syndicalistes yi di génn. pour wax ne pour dénoncer li ñuy woowee ñoom gestion catastrophique est-ce que yow yi mi nga xamante yaa ngi doog a ñëw di nga def audit pour nga xamante ne di nga mën saytu loolu yëpp. waaw xam nga li ko waraloon rek comme ni ma ko waxee. yàlla dafa def waxtaan amul tey rek rencontré na euh, le le les cadres. ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy suñu feuille de route. bi loolu jeexee rencontré naa aussi euh, les délégués du personnel pour apaiser leen wax leen li nga xamante ne moom la ñu taxaw pour doxal chambre chambre bi ñoom ñi nga xamante ne ñoo ciy liggéey euh, lu war ci ñun en tant que élu mooy protéger leen fexe ba seen ak yi ñu préserver ko. ndax pour ñu mën a liggéeyal l' opérateur économique wala mën a liggéeyal kilifa yi nga xamante ne ñoo seq Cambre bi il faut que ñoom ñu nett leen ci condition de travail yoo xamante ne dafay mucc ayib loolu dalal nañ seen xel. wax nañ leen ne li fi nekk kay moom la ñuy jéem a seet nan lañ ko préserver ndax bari na ay convention yoo xamante ne dafa nekkoon à te eggul. ndax ku ne xam na ne chambre bi ressources yi mu am li ci ëpp ci port bi la nekk. Mm. te port boobu amoon na ay jamono convention bi nga xamante ne négocié waatoon nañ ko. amoon na ay points yu bëri ñu waroon a régler te jàpp naa ne presque 90 pour cent de ces points réglé nañ ko kon signé convention boobu moo des. alors président euh, waxtu wi daf ñu dab xanaa ñu dem euh, publicité gannaaw loolu xibaar yi ci kàllaama kocc lay doon ñu dellu siwaat gannaaw xibaar yooyu waxtaan ak yow euh, encore ci chambre de commerce.